yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf borom Pastef Ousmane gis nañ ko gën a Pastef xët mu njëkkulise ko gaañi taxaw nañu teem ci njori mbaraanum kiirlaayum député ma mu amee ci assemblée nationale mu di immunité parlementaire am mode fast track yéenekaay bi nañu moom la ko tegal ne démb ci suba ci la ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall Sisir président assemblée nationale Moustapha Niass ngir ñu tàmbali yëf àjjuma wala altine jii di ñëw gën koo yàgg journal bi nee nañu fi ak semaine bii di ñëw dinañu def lépp lu ñu war def ngir immunité parlementaire bu honorable député Ousmane Sonko ñu dindi ko Walf Quotidien nañu ngir dindi mbalaanum kiirlaayu Ousmane Sonko ci assemblée nationale état bi def na ko yitte maanaam urgence la ko def Vox Populi moom it xibaar bi ci xëta mu njëkk li mu bind moo di ñas tàmbali na yoon ak pexe yi ñu mën jaar ba mën jël Ousmane kaay ak Sud Quotidien ñoo bokk lu ñu ci xëy bind ci seen xët yu njëkk mu di assemblée nationale ñoo nga ca ci tànki ñori Ousmane Sonko ca la taxaw lu ko fenn procureur ci dindi mbalaanum kiirlay bu Ousmane Sonko ba mu mën a am lante ak yoon ci noone yéenekaay bi nee nañu ci la ministre de la justice moom it sisiré assemblée nationale journal bi xamal ñu it ne léegi kii di Ousmane Sonko doonatul moom ak sandarma yu section recherche yi source moom li ko moo di Ousmane Sonko ab député la te député yi ku ca wopp sampac xaalis ba cay dem téeméer bu ca nekk juróom-ñett fukk ya mu di 80 pour cent frais médical yi assemblée nationale moo la koy gàddu léegi lu tax méttitu ginnaaw Ousmane Sonko gi bokk ci ba mu jaral njiitu Pastef gi mu gàddu xaalisu boppam ànd ak Pastefam gu mat sëkk xotti guddi gi ne day dàmp ji suur soi nañu xëy na Ousmane Sonko ñàkk wóolu gu mu ñàkk wóolu système bi fi nekk moo tax bëgguta laal seen dara ndax ndox mi assemblée nationale di jënd sax nit mënu tam Ousmane Sonko naanal la ca fa mu demoon doon dàmp ji moom Ousmane xëy na fa dellu ubbil yéenekaay bi ndaw si moom salon bi jëkkëram la wax enquêteur yi xëy nañu ko wax nee na ca bés ba ca mbés ma moom déggul kenn ku doon yuuxu wàllu dégguli dara lu yëngu ndaw si moom salon bi di Ndeye Khady Ndiaye l'observateur bind na ne ba yëf yi di xew moom fekk ko fa kañu ne moom la fa fekk di beneen xale bu jigéen bi ñu ne moom ak Adji Sarr ñoo doon maasi Ousmane Sonko l'observateur nee nañu xale bu jigéen boobee maam ba la tudd nee na ndax du dañuy yeeru rek ne moom la témoigné nee na bari nay ndaw yoo xam ne dajana ak ñoom bi mu leen interrogé li ñu wax moo di tey li ñu a xaati goñ ci xeexal Ousmane Sonko la tribune ñu ginnaaw Ndakaaru Ziguinchor Kees ak Louga bi ñoo naayit jax na démb ñooñu Ousmane Sonko yi ñoo fa doon tàngal ba am ñaar ñu ci jële ay gaañu-gaañu yu garaaw ay pën a tàkk na fa yàq nañu fa ay boutique caxat-caxate fa station Total ba fa nekk sandarma yi leen doon régler ci soleil national xëy na di ñu xamal li l'armée bi liggéey ca Casamance nee nañu ginnaaw lu ëpp fukki fan ñu nekkee ay bombardement ci sud bu Ziguinchor jot nañoo nangu ci fipp yi ñeenti base yoo xam ne ñoom rebelle yi ñoo ko yoroon l'observateur ne ko ba nanguwaale ay ngànnaay ci ñoom mu di ay ngànnaay yu bari te am doole ay mortier ay canon B10 ay roquette ba ci ay RPG lépp la soldats yi nangoo ci rebelle yi élèves yu doon soog a am bac di nouveau bachelier am ñu jàpp ne dañoo tàmbaliwaat processus bi jëm ci orienté bachelier yi waaye loolee amul li am moo di ci ñi am bac 2019 ak 2020 da cee am ñoo xam ne kenn jotul woon leen a affecté ñooñee la ñuy woo mu ne bu dee 2019 am nañu ci fukk ak ñeent bu dee ñi am bac 2020 am nañu ci fukk ak ñaar bi ñu ñëwee ba ñu xool seeni dossier ci la ñu gis ne jotuñu woon a présenté wu ji ci plateforme Campusen Amadou Abdoul Sow ne gis nañu it ñaar fukki bachelier ak juróom-benn yoo xam ne yeggalewuñu woon seeni inscription amit ñaar fukki bachelier ak benn yoo xam ne dañu forkulo ak juróom-benn bachelier yoo xam ne ñoom numéro table yi ñu joxe baaxul la xale bii di bébé muxtada réeroon ay mbokkam boobee ba léegi def na ñaari at journal libération xëy na topp ay tànkam nee nañu ba léegi xale bi feeñagul ca Touba Xayra fa la woon ba muy réer ñetti at la ci diggante kër maamam bu jigéen ak ay kër waajuram fa la réere woon ñaari kër yi dañoo jàkkaarloo xale bu jóge ci gii kër bëgg dugg ca geneen kër ca boobee ci la ñu ko gëj a gis moom bébé muxtada www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.